papa dama lay euh, remercier ci taxaw bi <coughs> waaye damay dellu ñaan la ñaar bu njëkk bi mooy sama yaay bu doon sama sago lii ñuy dox de du ko yëkk beneen bi nag papa te yow li la naqari woon yépp leer na la nañu meloon yàlla def na lépp sedd na guy mbay mii di samam caat sama digganteeg moom leer na. ba tax bëggoo dem mais wax ma ko ma xam au moins mais c'est pas le moment c'est pas le moment rek ça suffit pas. c'est pas question ni bëgguma ànd ak yow vacances et tout.